nee na biddiw yi ci asamaan moo gën a bari fekk suuf yi ci suuf biddiw yi ci asamaan moo gën a bari fekk suuf yi ci suuf te benn biddiw bu ci nekk ëpp na suuf si téeméeri million ak juróom benn fukk yàlla nee na sama kàttan ngo ah ñu ne loolu sama kattan la bokk.
samay kàttan la ba ci lenn la ci rek te boo jógee ci biddiw jëm ci biddiw war lu ñuy wax melax da nga am ñetti téeméer junni at biddiw bi nga jóge doo yegg ci bi ci des ñetti téeméeri junni at te melax mi ngi dem seconde bu nekk ñetti téeméeri junni ci ay kilomètres aller le tour nga war ko nag ñetti téeméeri junni at jóge ci biddiw doo yegg ci biddiw te biddiw yooyu moo gën a bari fekk suuf yi ba noppi ëpp suuf si ci boppam nag téeméeri million ak juróom-benn fukk yàlla nee na ci am kattan googu moom kenn mën naa yor adduna bi wa min annaasi tukkee na ci nit ñi man koo xam ne yu taxi su dee jàpp am daadan ay dendandoo ku muy dendaleeg yàlla min dooni laay bàyyi fa yàlla ay xiram yu ñu doona moom ñuy màggal xiram ya bëgg leen ka hubbi ka hubbillaahi ni ñu waroon a bëgg yàlla ñu bëgg ko xiram yi wante wala si na gaa ñi nga xam ne aman wa gëm nañoo asatu ñoo gën a tar xubban ak sofeer bëgg ga ñu bëgg li laay ngir yàlla moo gën a tar bëgg ga ñoo ñi bëgg xiram yi ne jullit ñi bëgg yàlla moo gën a tar moo tax ñu ni jaamu yàlla bu ne war nga ko bëgge ni mu bëgge yàlla kem ni mu bëgge yàlla nga bëgge ko waaw moo tax nit ñi nga xam ne dañoo xam yàlla li leen dàqal ba dàqal leen àjjana mooy xam yàlla ilmul maarifa moo dàq àjjana xam yàlla xam yàlla xam yàlla wala tara yow yonente bi doon te gisoon nga xam yàlla moom ci yital fakk wala coobare lay yàlla bari ci coobare ah kon itte mën na ko maye itte day mën na koo maye ndax sëñ Babacar nee na bi himmatin aw bi xaalin aasa tarbiyatan te ci tarbiya boobu nag ci nga xamee yàlla bi himmatin aw bi xaalin ah alxaal bokkul ak maqaama al maqaama ya doomu alxaal nag laa ya doomu nga togg xaal ba nag ba mu ñor nag di maqaama ki nga xam ne foo toll fu mu toll xalam ngi ci yàlla kooku mooy ki xam yàlla su xol du teqale ko yàlla mukk kooku foo ko gisee xam na yàlla soo xam yàlla am waaye beneen xam yàlla amul danga xam yàlla am am am am beneen kooku mooy xam yàlla yal nañ ko yàlla defal yal nañ ko yàlla defal ah du def ko mu neex am ko di du def ko mu neex am ko du def ko mu neex am ko laajoon nañu Abdou Aziz Sy Dabakh ku gën a saay saay ci nit ñi mu ne ko am vingt-quatre heures ñaar fukki waxtu ak ñeent te sam xel demu ci yàlla soo ko gën a saay saay ci nit ñi ah
mu ne
dégguñu li nga wax ma ne daraja nuñ tudd ci wolof
ah daraja day yëkkatiku lay firi yëkkatiku daraja moo tax iskala yooyu ñuy yéege ñu di ko ñu di ko ko tudd daraja yëkkatiku mooy daraja
ak daraja bi ñu juree bi ñu juree yàlla.
waaw mooy iskala yi mooy iskala yi yàlla ko ni ma dawee rek.
waaw iskala yooyu la toog dafa dawe.
iskala yooyu la daal mooy daraja innal munafiqina fi daraki l asfali kontaram nag mooy kal kal yi di ca suuf xam nga jullit ñi dañuy yéeg ci ay dara yëgu ci àjjana naafeq yi di wàcc ci ay kal wuti safara ah
darak suuf mi waaw darak ñoom mun naa waxee ne ci darak la solli allah ji mboj faal ba ñu demee makk waxoon na ko benn naar naar ba gàddoo yet na day xeex kooku daf ko yow naa saq nga rek mu gi ñu jël si na ma dikk fekk xoloo bi tàng lool naar bi ne li ma saa yaqulu lii munaafiq inna munaafiqiina fi daraki l-asfali ma ne ko moom moom amalu ko solo dañ koy waxante ci suñu réew mu ne kon seen réew baaxul ak bu ñu koonee naafiq nga rek du ko sax konte Hmm?
man saagoo ndee ko bañ waxtu yoo xam ne gis nañu al asar ba mbugal ga ñoo ñuy sàkkal yàlla andaat ndendandoo daañu xam ne anal quwwata naka kattan ga muy xudra ba jameen mboole li lay ñeen na yàlla mbir mi mboole wana laa naka bër yàlla sadidul iqaab sadidul asaab moo tax mu defoon iqaab defaat asaab yàlla ku tar mbugal la yàlla ku tar ak mbugal la fa tabaraka raw ndax ak mbugalam wuute nag suñu gos istabara muy badal ci ci bu jëkk bi ba nga xamante ni soppeeku na génn na dañ talu na la si na jaagaa ñi nga xam ne ut tuddoo toppee son na leen mooy kilifee tuddoo toppee son na leen ñu ne la si na ñu bëgg a def taxalus bëgg a génn ci gaa ñi nga xam ne itabahoo toppoon nañu leen ñi ñu toppoon bëgg a def taxalus ñu leen doon topp génn ci ñoom daal benn yoon waraaw waxat raaw maanaa gis nañu alaasaar bu mbugal gën a léegi wa taqataxat dagg na asbaabul sabab ya la leen boole woon yëpp dagg na mbooleem buum yi leen boole woon dagg na boole nañ ci saaru ci al ci téere su mu ne ilal muttaqin waaw wa qaala wax lasi wa qaala wax na lasi na gaa ñu nga xam ne itabawoo doon nañu toppe ñu ni ñañ doon topp lawaana karatam doonte naka yoon lanaa ñeeloon na nu dellu àdduna sama tabaroo daanu génn minum ci ñoom kama tabaroo ni ñu génn mi naa ci ñun bun dellu woon àdduna daanu génn ci ñoom ni ñu génn ci ñun noo leen gën a jéppi fop dan nee na kasaalika ne ko noonu noo ko gisandoo kasaalika naka noonu yurihim la leen wane laa buri yàlla maalum seen jëf yu ñaaw ya muy bokkaale asalaaka muy ak sart wa baahum te déet ñoom kat bi xaari gi dañuy génn ci moos mi na naari ci sawara jeex na yaayam naa si yéenu nit ku loo lekk leen min na ci la nga xam ne fil ardi len ni li ci suuf bu jaagee ni li ci suuf lépp des koy lekk dulloo min fa min ma fil ardi mooy ko ci bëggoon a dugal foon day sax ci suuf waaye len ni len ni liy sax ci suuf ndax len yanar fàll kenn du ko lekk min ma fil ardi xalaalan muy lu dagan tayiban muy lu neex wala tattabi'u bu leen topp xutuwaati seytaane yi yooni seytaane yi innahu ni fi moom seytaane xadduun noon la lakkum ñeel leen mu biinun ku di wóorub noone bayinul adaawati innama yaamurukum lu mu leen di digal bi sooy ci jëfi bàkkaar dong wal fasaay jëf lu ñaaw lu nekk na ci biir waaye la gën a bon nag la gën a bon la gën a bon ci mboolem li ñuy mooy yàlla la ci gën a bon ëpp cay bàkkaar wa an taqulu ngeen wax alala ci yàlla ma la taalamuuna lu ngeen xamul daganal lu ngeen xamul ah ah xaraamal lu ngeen xamul wa an taqulu ala llahi ma la taalamuun wala taqu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kaana anhu masuulan wa an taqulu jànguma de waaye nangam noppi rek ca gën wa an taqulu ala llahi ma la taalamuun bari na lool léegi lool lool lool lool wa an taqulu ala llahi ma la taalamuun di wax loo xam ne yow xam loo ci dara way saa xëy na dem nees na lawu ñeel leen ñoom yéefari itabee topp leen maa la nga xam ne an sala wàcce na ko laaw bur yàlla ci wéetal yàlla ak daganal lim daganal tere lim tere xaaloo ñu ni la bal natte bi daanu topp maa la nga xam ne alfay naa fekk nañ def taqalit rek taqalit boobu dañ koo tere topp koo xam ne ki lam toppoon du dëgg waaye nga ne nag man lam doon def rek lay def te taqalit lan muy taqalit taqalit mooy xabboolu xabboolu xawlin bila dalilin wala hujjatin nangu ay wax te kenn joxu la tegtal kenn joxu la lay xanaa nit ki wax la rek nga nangu kott kott rek yollu yollu lim la wax rek moom nangu nga ko te lim la wax doo ko seet wala ba ba xam ci dara soog ko nangu xabboolu aqin bila dalilin wala hujjatin ñu wax la rek nga nangu maa alfayna alayhi abana la nga xam ne fekk na na sunuy bàyyi doon ko def ci jaamu xiram ak araamal sawaayib min bayratin wala saayibatin wala wasilatin mu ne waaw walaw kaana doonte nekkoon na abaahum laa yanxiloon say an doonte nekkoon na seen baay xamul dara waaye ku sa baay xamul dara doo ko topp sa ñàkk gaa xam da ngay jéem a xam fekkee sa baay di jaamu xiram bu ko topp sa jaamu xiram ga walaw kaana abaahum laa yanxiloon say an aha ah wala yaxtadoona te jubuñu wa masalul la si ne misaalum ñi nga xam ne kafaroo dañoo weddi bay sàkkar yàlla dendandoo ka masalul la si mi ngi mel na waa ji nga xam ne yéen xiqu danay danay rekk nan ab juróom fekk koo xam ne kii woo bu baax moo koy tax a dégg nga di ko wooye waaw kooku du ko dégg yéefar yi boo dee wax ak ñoom noonu la mel yéen yokku muy rek koo xam ne ci du dégg bi maa ci koo xam ne laa yos maw du dégg illaa duwaan nda rek woote ca kaw wani daan ak xaacu duwaan ak yuuxu ca kaw wani daan ak xaacu ñoo koy tax a dégg lu tax waaw ñoom lu tax nag duñu dégg nga ne hum ñoom su mun woy tax lañu xum ñoom bukk mun woy lu lañu xum ñoom xum yun woy gumba lañu foom ñoom laa yax xeloona duñu xelu mukk ak waar tax gumba lu yàlla si naa mënoo yéen ñi gëm yàlla am na tulloo lekk leen min tayibat waxoon naa leen ko xalaat lu dagan maa saq naa comme ci liñ leen wërsëgal ah bu ngeen lekkee ba noppi bés kuroo sant leen li lay ñeel yàlla bu leen sant kenn ku dul yàlla ndax moom moo taw ci suufam gàncax ga sax ba mu ñor taw ci suufam gàncaxam sax mu ñoral ko neexal ko ñu góob ko bojj ko soq ko wol ko foof ko lay ko layaat ko ba mu des cere nga ñëw tiim ko fi mu jaar fépp te sonnoo ci fekki woo ko jox la wér boobu.
ba noppi mu jox la wér goo koy lekke neex ko ci yow itam nag war nga xalaat yii la ko def nii ba mu yëg si fii sànni cox ba fekkale wóor wa sànni xatax ba sànni cax ba teg cee wóor wa ndax lay nga ko ba mu tees wóor mooy ki tudd tudd ko wóor dafa wóor moo tax ku wóor yaay woor ku wóorul doo woor woor wóor la tudd mooy jullit bu wóor jullit bu wóorul du woor koo gis wóorul du jullit bu wóor moo di wóor ah moom la moom la war a mën a woor wóor wóor ba mu mënta yegg ca yenn koor ga itam nag nu wóor rek woor li mën koor ñi nga xam ne dañoo xam yàlla nag ci wolof ñooñu ñooy wul mooy wóor wuñ wal layaat ko la fay des mooy wuri waaw wuri waaw góor ak ñun. bu dëgg dëgg naa wóor. daa doon wóor boobu. wóor bu boobu nooy.
ah ah nga def ko wóor ay boobu nag.
pour dal na ko ba tey mu ne waaw wóor.
ñu xam yàlla nag ñooy wuri ñoom nag yàlla am dañoo yegg ci wóor wóor waaw. yéen ci wóor nañ.
ولو كان آباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يدون تمين بكم من من من daal dañoo mel nay bàyyi ma rek est-ce que.
lekk leen nag tamit sant in kuntum ngeen nekk ngeen taabudoon di jaamu fekk yàlla ngeen di jaamu day lekk leen te sant iyaaw foofu moom yàlla yàlla bu mu waxee la dagan xanaa danga wax li mu araamal innama dëgg li nga xam ne moom dong la araamal mooy innama ji innama moom dong la araamal araama araamal na may kata may kata midd na aleykum ci yéen midd dëgg lu dëkk ak midd moo tax suyatu laajoon nañ ko ganaar gu midd ñu jële ca nen ñu ne bu fekkee dafa dëkk ak midd mi dafay daal di araam najasun sobe la sobe la waaw bu dee yàggee sobe la ñun boobu sobe la téeréem dañ naan alxaawi lil pakkaay yi ci la ko wax te ñetti téeméeri laaj lañ ko laajoon ci la ko wax laaj yu bare bare bare xanaa boo xam ne dañu ba nekk ci nangu loolu yàpp ñu ñëw jàpp ko lu dee waaye ko njàng ko bu kii dem ñu ne donc ba soo nangu lu dee ah déedéet jotewul ak jote- jotewul ak moom dara ganaar gi dee na nen yi nekkuñu ci biiram nen yaa ngi ci àllam ganaar gaa ngi ci àllam da nga koy raxas rek waaw noonu rek la bisimilah ñu dem nee na déglu leen dina maarama aleykum may taka médd ma wadama ak deret yi puufu waxul deret bi nga xam ne da nga rey gàtt bi fees ko deret yi taq ci yàpp bi waxul loolu ba nga koy rendi deret ji génn ci rendikaay ba ñu daan ko wax deret yi puufu xam nga yéefar yi ak musrikoon yi dañ daan fekk ko gàtt ñu wut lu mel na rab bënn bëri gi fab ab kaas dëkk ndu der jooji naan ko nee nañu moo dàq sàngara
manjal yi ren sa ndax waaw nee nañu moo dàq sàngara mooy sababu ñu a deret jooju boo ko rendiwul ba mu génn ñu yàlla ne gàtt bi mëdd na mu araamal nag deret yi deret jooju le ndax yërëm gàtt yi mu araamal ko deret jooju la dafa araam waddama waddama da nga bañ a wax waddama mel ne miim ngi daal sadda déedéet waddama waddama ñu ni boo bëggee indi cosaanu baat bi tasmiyee ko kon nga daal di indi cosaanu baat bi lan mooy cosaanu baat bi damiya baat bu naqaree di cosaanam la il faut nga tasmiyee ko soog a xam cosaanam ci ñu jàng nawul damiya boo ko waxee ko xamul ne ko tasmiyee ko dala naan dàmmaani wa dama wala makin fiir ak yàpp mbaam xuux mbaam xuux yàppam dafa xaraam mbaam kër yàppam dafa xaraam mooy mbaam sëf mbaam ngara borom bëñ yu gudd yi yàppam dafa xaraam mbaam mi yor rëdd yu rafet yi nag di ko wax seebar moom rek moo ci dagan boo ma ak la nga xam ne onal nañ koo rendi bii ci loolu ñu rendi li xayri lay te kenn rendeewu ko ci turu yàlla ala rendee ko turu leneen fa man koo xam ne ki ultara dafa loru nag mu ngi bëgg a dee ko xiif xayra baaxin te nekkul ku génn nag ci lislaam ñu ngi ci biir lislaam wala aadin jéggiwul dayo ci tooñ waaw kooku nag mën naa lekk ci medd moomu fala isma de benn bàkkaar àlla yi di war ci kawam di lekk mu lekkee medd moomu ina laa ni ki buur yàlla xafoon aji suturaal jaam reyam ko tax ko yor man lu dul loolu ku mu doon rek medd araam na ci yow xaj sax tere nañu nga fa am medd xonte ko bu ko dee lekkal boppam nag bu ko tere bu ko nangu waaye nag bul fa am medd mi nag jox ko ko xaraam na xaj fab medd jox ko araam na bu demee lekkal boppam nag bàyyi ko ci ah ba lekk ko ah léegi rek yàlla dana la jéggal waaye nag juum nga ndax ba nga koy jënd waral ngaa laaj yàpp lan la ndax bind xam nga ñoom bind nañ ko déjà ñoom sell nañu boo leen laajee yàpp lan la ñu wax ko bind nañ ko dañ koy ber duñ ko jaxas
ndax yàpp mbaam xuux boo gisee yàlla tere na ko sunu yërmande rek a tax dafa am butit goo xam ne bi juróomi téeméeri jàngoro da cay nekk waaw butit googu nga xam ne ñi ko bëgg moom la ñuy wàcc di ko tudd xam nga buddi la xam nga budda bu dee bu dee budee juróomi téeméeri jàngoro cay nekk du mbaam xuux yi da ko am nag waaye nag comme jaxasoo na ci mbaam xuux yi ah te xamuñu bu mu ci moo tax yonent bi araamal lépp muy mel ne yoo rek boo jëndee sa yoo tax see pompe yoo yëpp ngay pompe te te wenn rek moo ci moo ci moo ci màtt lu si dul woowu ñuy wax anisel la xamu waaw moo ci joxe si buri xafoorun rahim ba demee ci téere bu naan taskiratu ulil albaab da nga fekk loolu yi may wax inna lazina nit gaa ñi nga xam ni yaktumuna dañuy nëbb maa la nga xam ne ansala wàcce na ko laaw bu yàlla minal kitaabi ci téere bi mooy yëwoon yi waaye saroona ñuy wecceeku samanam gànjar samanam adduna xàllalan ko di neew fii ca dëgg ga ulayka ñooñu gaay maa yaakuloona lekkuñu fii butuunin ci seen biir ya ilan naaram da rek sawara lu araam la ñuy lekk sawara lañu lekk lekk alalu jiw sawara lañu lekk sawara nekk ci seen biir wala yukallimuhum du wax ak ñoom laaw bur yàlla yowmal xiyaamati ngir mere leen wala yusakim du leen laabal du leen sellal ci ay bàkkaar du leen baal la ci jublu wala um ñel ne leen asaabun bu koy allimun gu métti ulayka ñooñu gaay li ci ne mooy ñi nga xam ne istaro wecceeku nañu dalaala ta réer ga bil uddaa ci ak njub wala asaabu mbugal ga ñu wecc koo ko bil maxfirati ñu jël asaabu bàyyi fa maxfirati ci ak njéggal fama asbarahum miim gi miimu taajub la taajib lil moominiina yéen naa lu leen muñ loo ala naari ci sawara bi ñu nekk ndax yaa ngi ci àdduna def lu araam lekk lu araam yaa ngi ci biir sawara te muñ ko inna labraara la fi naimin wa inna fujjaara la fi jaymin am na ñoo xam ne ñu ngi ci sawara waaye nag islaw nahaa yowma diin seeni du set dem na waaye nag bis yow ma xeexam nag la ñuy dugg nag yàlla nañ ci yàlla musal nga soog a xam nag li xew moo tax yonent bi ne ci addis annaasu niyaamu ñëpp a ngi nelaw isa maatulum tabixoo suñu dee na yeewu aha ñëpp a ngi nelaw lu bari ci nit ñi ñu ngi nelaw bala ñooy yeewu rek dee ah nee na saalika lu leen ko yóbbee lekk sawara wi sawara wi ñuy lekk benn laa naka yàlla nasala wàcce na alkitaaba téere ba bil haqq ci dëgg loolu moo tax fii ci xatmu Quraan bi ñu war na binal de waaw wan naa bina xablal manaaya min na mun xablati loolu muy ñaan nag naqari naa génn moom nelawi kaw laal moom xëy na mën nañ cee kii waaye nelawi xaf la nawmul xaf la ñu néew ci génn nit ki mën naa nekk ci kaw bataan bi dem mën naa dawalu Mercedes am mën naa ne fu nekk mën naa am lu nekk waaye mi ngi nelaw nawmul xaf la si moom lay ñaan nag wa nabbi naa yàlla na nga nu yee xablal manaaya min nawmul xaf la wala xam nawmul xaf la bala ñu dee lépp baax bu yem yàlla na nga nu yee bala ñoo dee ñooñu mooy ñu yàlla yee bi ñu daataan tëdd ku nar a yeewu da ngay yeewu bi nga daataan nelaw
loolu yow ah am solo de waaye ku yeewul ba nelaw doo yeewu da ngay jóg rek waaw mais loolu ñu naan ndax diw jóg na ñu jóg na de waaye yeewul de nelaw ba yor yor ba ñu jindi suura lu gën a bari dañ naan rek jógagu la ñu ngi jóg na de waaye kenn du ko tuddee yeewoon déedéet yow naa ca xajar kay la ñuy wax waaw ay yow naa ca yor yor
ah loolu bu weesoo de di ko wax yow dootoo yow jóg jóg jóg la rek
ñëpp ci maas
yow naa ca xajar
yéen a ngi yàlla yee
te aji bi moo xabar waay
amin yéen a lësina mu tuuti si li de ni ki gaañ nga xam ne yaxtala wuute nañu fil kitaab bi ci téere bi muy yowóot am ñu ni musrikoona la bi si xaaxin ñu ngi ci wuute de ba yi duñ ko sori dëgg laysal bir déetu baax antoolo ji li jëm wujjoo ngeen jëmale seeni kanam xibbalal maseeke bu li jëm cànku rek taxut a baax wal maxrib bi jëm sow rek taxut a baax walakin lu ñu ne albir walakin ni albir baax daal baax luy baax baax mooy ku boole yiw yëpp mooy firi bëru man ka nga xam ne amana gëm na billaay ci yàlla wal yawmi ak bis bi axira ba di mujj wal malaayika ci ak malaayika yi mu gëm leen wal kitaab yi ak téere yi maanaam kutub yi la ci jublu wa nabiyina ak yonante yi waataan te mu nangoo joxe almaala alal ja allahu bi ci kaw bëgg gi mu ko bëgg lim ko lim bëgg mu joxe ko masalan allahu bihi ci kaw bëgg gi mu ko bëgg mooy maahu bi allahu bi dañ ci werante nag maaw bii fan la dellu ñu ni mi ngi dellu ci ki yor alal ji di ko joxe am ñu ni mi ngi dellu ci bëgg ñu mu koy jox nga tax allah bii mu teg ci sawil xurba néewul sawil xurba sawil xurba li borom mi jege ñaale wala tàmmee girim yi wal masaakin ak miskin yi wabni sabili ak kiy tukki bàyyi alalam ci réewam way saayilina ak way sakkuña di laaj ba fi riqaabi te yooyu jamono ak jaam buy jot boppam bu ko defee bu joxee ñooñu alal bi ba pare nag te moom ñu koy joxe bëgg na ko li ñuy joxe lu mu bëgg la waxuñ mu jël li nga xam ne soxlawu ko waa qaama mu soog a joxe mu soog a taxawal nag salaata julli waa taam mu soog a joxe sakaata asaka nee na wal moo fóo na ñi nga xam ne nag way matale lañu bi aadum seen wala re isa aadoon de wala rent nañu ak yàlla wa saabirina wa saabirina xam nga wal muufuuna la waxu waxul wa saabiruuna dañ koo nasab ci mat fi musiba alal mat fi indi woon naa ko de
na lan ak suy jëre suy na
non ak suy jëre moom lay seet moom lay wax ndax dinañ ko oto ba
waaw bismillah xot la tegal naa ko ci téere ndànk sax
am na njoogu am na njoogu
dana ko gis gis ko jot gis ko jot na ci waaw wa saa wa saabirina dañ koo nasab ci tagg di wax ba mu yàgg nag nga tagg nit ki nag maanaa am damu saabirina maa ngi tagg maa ngi tagg way muñ ñi maa ngi tagg way muñ ñi fil baasaay ci tar tar wa daraay ak lor waynal baasi ak waxtu xeex ulaayka ñooñu gaay la si ne mooy ña nga xam ne sadaqoo dëggal nañu seen gëm ulaayka ñooñu gaay hum ñoom mu taqoona mooy ñi ragal yàlla yàlla si naa mënoo yéen ñi gëm yàlla am na kutuba farataalees na kutuba farataalees na yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ni yàlla am na te sax ca gëm ga te sax ca gëm ga mooy ñi gëm yàlla te sax ca gëm ga wala nga wax ñi nga xam ne saxuñu ca yàlla si naa amanoo kutiba aleykum xisaasu fayu farata la tulaxat la ci rey alxurru asgor bil xurri bu rees gor dañ koy rey kenn du ko rey nag ci mu reyub jaam wal abdu ab jaam bil abdu bu reyub jaam dañ koy rey wal unsa jigéen bu reyee jigéen bil unsa dañ koy rey anal sàkkale bi xatlu bi ñu nag ah fa man koo xam ne ufiye jéggalis na ko nag lowoo ñeel ko ñu yilif néew ba nag ñoo la jéggal ñu jéggal ko lëf nag min axi as lëf ca dereti mbokkam lim waroon a joxe maanaam min damil maqtul waroon nañ koo rey reyuñu ko mu joxe dee jéggal nañ ko sëyum lëf maanaam rey gi kenn fayuwu ci kenn fayuwul ci moom rey gi dañ koo laaj dee jéggal nañ ko rey gi waaw nee na nag lu ci kenn bàyyee na maanaam ñu ñu reyoon nit tey ñu ko war a doon kenn ci ne man duñ ko rey bàyyi
ah defe naa nag faaw ñu d'accord ci ñi koy doon ñi koy doon wala wala kilifa ga waaw kon kon it ñu bàyyi ko kilifa ga kenn jéggale rek bu kenn jéggalee dañuy dañuy daal di laaj dayee gi ñu jéggalewul doon ñu jéggalewul nag ñoom fab li leen gënal daal di jël seen wàll moo tax mu ne fa tibaawun fa alal aafi itibaawul xaatili fa itibaawun ay fa alal fa alal aafi muy fa man ufiya ñu topp nag aji rey ji bil maaruf ci baax da koy topp nag foofu ca baaxul nag bil maaruf baax gi nag mooy mu joxe dee mu comme loolu nga wax wa alal xaatili war na ci aji rey ja mooy wa addaawun ji wa alal xaatili war na ci aji rey ja dafa di ci attee fiq addaawun joxe illee ci aji jéggale ji mu jox ci aji donn ji mu joxe dee mooy wa addaawun ilayhi tam bañ koo yàggal nag bañ koo geccali saalika boobu la atte taxawisun woyofal la ki ñu doon war a rey te kenn reyu min rabbikum wa rahmatun yërmande la it ci yërmande yàlla ju yaatu ji yow waroon nañ laa rey kenn reyatu la bu ñu la laajee alal da nga war a daw ba fattu tamane tadda ku jéggi nag ci ak tooñ sulmal xaatili def la dañ ñu reyal la kenn nga dem rey ñaar baada saalika wala ñu jéggale ba pare dem rey te jéggale woon nga ay alafu jéggale nañ ba pare nga rey ñu loolu nga doon wax fa loo ñeel na ko asaabun bëggal alimun gu metti nag ci àllaaxira wala kum ñenn leen ayaatun dund fil xisaas fil xisaas ci nangoo fayu fayu dana tax dund am dana tax mucc am bu doon def ko rey ñu rey la léegi rey bi wàññeeku moo di fayu wala kum fil xisaas yàlla ne ko ci xisaas fayu farata la waaw ci doom ji nekk de dem na adduna mooy tax ngeen am jàmm yaawli lal baab yi yéen boroomi xel yi waaye nag lal baab lay waxal mooy liy sax ci aw jiw bokkul ak aqlu aqlu moom ay freine rek la lubb nag yaawli lal baab yi yàlla nee nañ yéen lay waxal laa lakum kon yéen takkaxoon na ngeen ragal yàlla kutuba farataalis na ah alwasiyatu dénkaane kiy bëgg a dee ñu dénkaane ne bu ma dee nañu def nangam nañu def nangam nañu def nangam wala mu ne sama sulus alal nañ ko jox diw jox ko diw wala nañ ko jox diw aleykum ci yéen isaa adara ndem teew na almawtu ahadakum kenn almawtu dee ahadakum ahadakum kenn ci yéen xam na ne daal dee ñëw na asbaabi dee ñëw na in taraka ndem mi ngee bàyyi xayran alal xayran ci alxuraan lu ci bari alal la wasiyatu gi nag moo doon naayu di faayili kutiba kutiba al wasiyatu lil waalidayni nga dénkaane sama wayjur sama wayjur bu ma dee nañ ko jox nangam waaye dafa mujj man suux wal aqrabiina ak ay way jegeñaale ñi la ciy doon na bil maaroof ci baax la la la wasiyata li waarisin kuy doon kenn du dénkaane luñ koy jox kuy doon kenn du dénkaane luñ koy jox la wasiyata li waarisin
kenn waru ko caa may.
déedéet moo tax wayjur comme day doon te wayjur kenn mun koo dàq ci doon da nga koy dàq fii rek mu dem fee waaye génnee ko ci ba mu set isqaatul isqaatul ëgg bi rek lañ koy mën a def isqaatul naq si maanaam wàññi wàññi li mu waroon a am aha moo tax borom suuf wax na ko wala soqoota li habbin wala soqoota li abdin wala walad wala li sawjayni wala ummin faqat juróom ñi kenn mu leen waratal ba duñu doon
ndey ak bàyyi.
lil waalidayni wal aqrabiina bil ma'ruuf ci baax dama jabar.
xaqan ca dëgg alal mu tàqi na ci ñi ragal yàlla mu man suuf nag comme li ma doon wax laa wasiyata li waarisin rawaawu tirmisiyu téere bu ñuy wax tirmisiyu andi na ko ko man koo xam ne kii badde watte na weccee na loo ñeel ko baadama sàmmoo dégg lii ba pare gannaaw bi mu déggee ba noppi mu def lu dul dëgg fay na maa ismoo bàkkaaru bañ a dénkaane alal la si ne war na ci ñi nga xam ne waaw fay na maa ismoo bàkkaaru dénkaane waaw waa ji dénkaane na ba pare li mu waxoon ñu bañ koo def loolu mooy fa inama ismihu bàkkaar ba woon ca dénkaane la waa ji waxoon dégguñu ko alal la si ne war na ci ñi nga xam ne yu badloo noonu ñoo ko wecc ñoo ko remplacé waa ji lii la waxoon ñu def laa ñu def la neen bàkkaar ba dana wàcc ci ñoom daa ñoom bàkkaar daa di nekk bu waxi ndee saxee rek dumbe ko ca bàyyi deekee gannaaw li mu waxoon lu war la alxuraan a ko wax war nañ koo saxal waaye bu waxi ndee saxee rek dunda ko ca bàyyi inna laa ni ki bër yàlla samiun aji dégg la alimun aji xam la faman koo xam ne xaafa ragal na nag min muusin ci ay dénkaane jàng jàng fan jàng li taksir bu dénkaane na ragal na ni dénkaane bii kat daañu ko jàngal mu dem defar ko dara néew ci jànn fan ak jàng ak njuumte aw isman wala bakkaar paas la mu yéwénal bay noonu seen diggante ki ñu dénkoon nag ki dénke lii laa la dénkoon mu ne dénkuloo ma woon lii lii nga ma dénkoon nangam ak nangam falaas ma déet bakkaar àll yi ci moom moom la doon defar ina laa nekk bi daal a xafoorum ko sutaal jaamu rayoon ko taxawoo yéen mu nekk yaa la si naa mënoo yéen gaañu gëm yàlla am na kutiba farataales na ak siyaamu koor muy naay bi fayal bi àllaykum ci yéen kama kutiba nañ ko farataale woon alal la si na bi nga xam ne min xablikum jëkkoon nañu leen docteur yi dañ ko daan war dale nit woor ñetti fan woor juróomi fan ndax da daan joxe wér gu yaram moo tax moo tax mu ne alal la si na min xablikum booba weeru koor bi nii woor nekkagul farata ñëwagul laalakum kon yéen tattaxoon a ngeen ragal yàlla koor nag ayaaman ay bis la maa doodaatum bis yoo xam ne dañ koo lim bis yu néew la ay xalaayil wala ay waxtu koor ndax bis bi genn wàll gi rek la ñuy woor du nu woor guddi gi faman koo xam ne kaana nekk na minkum ci yéen marilan feebar aw ala safarin wala muy voyage tukki faidatun mën naa leb mën naa lim bis yi mu wóorul ne ne ayaaman ci yeneeni bis uxra muy jamuy uxra uxra yeneeni bis bu ñëwee te am wér gi yaram mu fay bu ñëwee te tukkiwul mu fay wala la si na yuttiqoona ko ah am nag ñu ciy defuk laam li kibarin aw maradin laa yarjaa buroo waaye lañ ci jublu mooy ba koor di soog a ñëw booba ñooñ dañ leen doon tànn loo woor wala ba joxe njot moo tax mu ne wàlla lisi na war na ca gaa ñi nga xam ne yutti xoonoo am nañu wér gu yaram wér nañu pelag te wóoruñu fëddee te ta'amu masaakin li ko man suuxal nag mooy faman sayra minkum saara fal suñu mu mujj man suux nag kenn tànnloo tu la dañ ni nga woor ci man na woor moo tax ñenn yenn tafasir yi def wala la ci ne laa yu tuuxoon mënuñu koor gi li ki bëri ngir mage wala feebar boo xam ne bi yaakaaroo ca wér ñooñu dañuy joxe njot fidyatu taami masakin njot ay miskin bis bu ne nga joxe mudd bu ñu wooree ba ngoon nga joxe mudd ñu mën suuxal ko nag li ñu mën suuxal mooy fitne lañ defoon ko sëtërul islam wa kaanoo muqayyirina fi sëtërul islam ci asatu jilaalayni bi foofu bayna sawmi wal fidyati suma nufiqa bi taayini sawmi ñu ràññee koor nag ci faman sayra minkum saara falum sum kooku mooy wala la ci na yëtti xono koo xam ne kii nag fekk na minkum ci yéen saara weer wa falum sumu naka woor Ibn Abbas nee na ilal amir ndarek jigéen du ëmb ak suy nampal taragal doomam isa tarata xawfan alal waladi kooku kenn man suuxal ko moom waaye nag day fay waaw faman tattawaxa nag xayran koo xam ne ke nag neex na ko lan waxoon ca wër ca daw safaan marwa koo xam ne ke neex na ko xayran mu joxe lu ëpp mudd mu jo ci njot bi nag mu joxe lu ko ëpp te yi nag nañu li mu war a joxe mooy huit cent grammes bi siyaadat foofu moom coobare loolu xëyrun moo gën la foo ñeel ko imaamu malik moom mi woor a ko gënal mu ndax alquran nee na waan tasoo moom musaafir bi ak ci feebar te mën a slëp xam ne daal mën naa ñer ñeri ba woor wala ngay tukki bu ñu wooree de xëyrun moo gën lakkub ñel leen ndax li mu làmb bari na ndax mën ngaa jóge fii xëdd ba noppi jóge fi dugg ci avion dox dem foo xam ne fii da ngay fekk jant ba du sob te jant ba sone ci réew mi nga jóge loolu lépp boo boo wóoru woon li tax ñi musaafir bi ñu koy may mu bañ a woor loolu ci la bokk waaw wala nga dem foo xam ne bi jant ba sone te sowul ci réew mi nga jóge kon it ah ñu waa réew ma def rek day def jant ba sono jant nga doon wooral da ngay dog fekk nga jant bi sowul ma yeggale fekk nga jant bi sowul jant nga doon wóorul dog ba togul waaw ma tuuti de
dama dañoo mën a woor jóg ba jant bi soo bu taw bi yàlla ci rab jant dafa mën a ko wax
waaw ma ma yeggale li nga wax kat dégg bu ma ko nga ni da ngaa woor fii ba jant bi soppi bëgg a sopp waaw ah xanaa xanaa da ngeen a dog te jant sowul
dañoo dugg avion bi le temps avion bi départ ba ñuy génn réew mi dog jot nañu fi ñu jóge ah dog leen tuuti rek dog jot na fi ñu jóge nee na mu dem a dem a dem ba mu gis- ba mu yàgg di gisaat seen bopp loolu day war rek dogoon na ba pare ah dog ba pare mu yàq dog ba pare koy jeex waaw ma ne li nga dog ba pare moom bis boobu moom jeex na xanaa leneen la ñuy wax yow bi ngay dog jant bi sonn te dog nga ba pare jërëjëf day fi jant bi ah te da ngaa dog ba pare rek voyagé day fi jant bi du da jant bi yaa ko dab waaw waaw loolu rek la loolu bis moom dog nga ko ba pare jeex na ñu dem boog wante soo moo xayrun lakum in kuntum dem nekk ngeen taalamoona saaru ramadan moo tax ramadan kenn du jekk-jekk rek ne ramadan li dagan mooy saaru ramadan la ramadan turu yàlla la dañoo bëgg nga naan saaru ramadan waaw waaye ramadan rek rafleel nga ko saaru ramadan waaye boo ne jekk-jekk ne ramadan rek borom xam-xam ya ñu ngay wax ne yàq nga
waaw
la fii mooy la nga xam ne um si rawasee na alquran alquran fii ci weeru koor ca lawil mahfuus li naa si ñoom nit ñi wa bayanaatin tamit ay lay yu leer minal uddaa ci ak njub wal furqaani tey teqalee dëgg ak fen te man koo xam ne sayida fekke na judd na fekk weeru koor nga dem nag ba mësoor moo tax ma ne ku fekke weeru koor min kum ci yéen nga fekke saxara weera fala yu sumhu naka woor te man koo xam ne kaana nekk na maridan di feebar aw ala safarin wala muy tukki te iddatun na lim ay bis min ayaamin fii bis uxara yeneen ba yeneen bis yu mu wér ñëwee yeneen bis yu mu tukkiwul mu fay yuridu namm na laaw bur yàlla yusra jàppandal bikum ci yéen wala yuridu nammul al usra lu jafeñ bikum ci yéen wala tukki mi loo ngir na ngeen matal yàlla dafa bëgg ngeen matal aw weer